mett na trop vraiment parce que bëgga a dem te mënoo dem moom métti na lool lool parce que da ngay mucc sax da ngay obligé sax jël ay moto pour mën a xëy ak xataayu dëkk bi bala nga àgg fi ngay liggéey mu sonn trop sa suba ba tey nit ñi ñi ngi fi yàgg fi trop vraiment kon transport bi daal moom métti na daal boroom kër yaa ngi nii toog war a xëy kenn mënul fexe ba dem parce que da ngay xëyee sa kër ay 6 heures du matin nga toog fi ba 10 heures fekk la fi grève bi tey moom franchement parlé arrangé wu ñu bëri fu mu nekk nii ñi ñaa ngi nii taxaw ci arrêt bi amuñu oto kenn demul cak-cak yaa nii bu ñu yebbee boo am amulee euh, moyen bi doo mën a dem. waaw loolu moo tax ñun ñoo ngi nii depuis 6 euh, heures ñu ngi toog fii di xaar. léegi dañu obligé dellu ñibbi. traite bi arrangé wuñu quoi. parce que ñun a ndaw suñ commencement tarif 500 la commencé. franchement métti na trop. grève bi ñëpp ñëpp la touché ñëpp la laal. ndax na lu tax ndax policiers dañ leen sonal wax nañ dëgg nag franchement ñun ñii sax dañu sonal. des fois ñu lay jàpp il ñu lekk si yow dara te loolu tamit neexul quoi. waaw solution bi moom mooy ñu waxtaan ba juboo rek buñ juboo rek lépp rek saafara wu dal. non fu mu nekk ni franchement Fall moom dañu war a jàppale parce que euh, élèves yi yaa ngi fi ak euh, ñuy liggéey tamit bon affaire bi daal doxul daal nañu jàppalante daal waaw état bi daal jog ci affaire bi daal affaire bi daal mu gaaw. geneen bi de su ma sañoon moom wax dëgg fa yàlla. mu arrêté quoi parce que même bu dee. du ñëpp ñooy jël moto. bu ñu sañoon état bi trouvé terrain d'entente waxtaan ak ñoom gars yi xool lu ñuy delloo si waatee.